asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 19 juin 2019 ñu ñëw ci yëglikaay yi yëglikaay yi nag tey moo xam sunu làmb la la tribune source a les échos leewtoo point net ak yëglikaay bu a doon daal tey xëy nga ñëw kii nga xam ne nii moo di Mor Fadam nekkoon fi ancien lutteur nekkoon ancien champion d'Afrique mu mel ni kii nag tey moom bi ñu xëyee dañoo yeewa aw naqar moo xam nag yëglikaay yooyu bu mu ci mën a doon ñëw nga ci génn àddinaam ku ci nekk rek yaa ngay wax ca moom bu dee fii nga xam ne ni day mooy sunu làmb la mu mel ni ki nag yëglikaay ba ñuy xam ne day nee na Mor nag bésam yu mujj dund na ko démb ci àddina bi wuy boroomam ci wuy bi nga xam ne day bu daw a daw a daw yaram la bu doy waar ndax nag julli na lii nga xam ne mooy waxtoo tisbaar ba pare door a wuyu boroomam moo tax yëglikaay bi li xam ne day 1957 nag ci la gane àddina fii nga xam ne nii moo di ca Mbàkke moo tax yëglikaay bi tudde ko ki nga xam ne day moo doon waa ji nga xam ne foo ko fekk rek yaa ngay fekk kurus ga ca loxo ba muy wirdo di wéetal lii nga xam ne moo di boroomam moo tax tey ñu baree baree baree bare xëy nañ wax ci moom bu ñu demee moom moo di ci yëglikaay bi nga xam ne moo di suuf su àll yëglikaay bi nag am na ñoo xam ne day ñu ngi fay joxe seen ay témoignages ku mel ni ki ki nga xam ne moo di mbay géey mbay géey day nee na Mor na mbër moo xam ne day soxor moom nekkuwoon ci ab xolam masu koo mas a def maanaam daal adversaire am sax daawu ko yéene loo xam ne nii lu bon la maanaam daal moom ak lu mën a xew sport ba lay jàpp waaye mbirum soxor nekkul woon ci moom booy kayre moom day wax état bi nee na rawatina nag ministre de sports ba tey ci suuf su a nee na leen day ngeen fexe nag njaboot gi mu fi bàyyi ngeen jàppale leen te yàlla rek tax ndax nag moom day teewal na Sénégal fu nekk ci wàllum li nga xam ne moom la doon def yëglikaay bi moo xëy tey di ñu ko wax mu mel ni kii nag ka nga xam ne tamit mooy màngo de wax na nee na moom day li mu xamoon ci moom daal fu mu ko gis daal lii nga xam ne ni day mooy li nga xam ne mooy kurus ga mu ngi ca loxo ba daal muy wéetal boromam Gaston Mbengue itam mu ngay wax de moom nag dana Mor Fadam daal li mu mën a xam ci moom day ku sonnoon la xoo xam ne ni di ci fameem donte que sax amoon nag wér-gu-yaram goo xam ne mu ak wéradi gum doon demaale waaye taxul woon taxaw ba ba yàlla def mu wuyu ji boromam yëglikaay bi ñëw na ci ki nga xam ne ni tamit moom moo di léese ko wax na ci moom léese ko tamit mu ngi xam ne day Mor Fadam nag bésam yu mujj day dund na ko nee na nag lii di crise daal moo ko yóbbu léese ko moo xëy tey dina ko wax waaye beneen yëglikaay boo xam moom tamit wax na ci mu di la tribune la tribune tamit ñëw na wan ñu Mor Fadam ak aw photo moo guy gi mu mel ni ki nag ak demam daal la ñu yëglekaay yi di wax wan ñu photo woo xam ne day yàggul barki démb fan yi ñu génne kese la benn téléthon bu ñu defal booy bambara ca seen TV mu ngi taxaw moom Mor Fadam Max Mbargane Luc Nicolaï ak kii nga xam ne nii day ñoo doon animé émission ba muy loo xam ne daal lu doy doy waar la yëglekaay yi xëy tey ñëw ci ba tey Lac de Guiers 2 ak mbëri géejowaay yépp daal ku ci ne yaa ngay wax ca moom mbaaxaayam ak oyofaayam ak laabiram ak neex deretam waaye buñ fa jógee nag dañuy continuer ba tey rek demaat ci sunu làmb yëglekaay ba nag daa xëy tey seq ak mbay géey ay waxtaan mbay géey nag wax na ay dëggam de sunu làmb nu ko wax ñu ngi woon rëg-rëg mu ngay nu takkab dugubam mbay géey na ca wet ga di wax nee na rëg-rëg day étoffu champion la yor maanaam daal boo ko gisee sax étoffu roi des arènes la mbay géey wax nee na boo bëggee dégg dëgg dencu nee na nag Ama Baldé moom mi doon wax ne day bëreeg moom fi mu nekk ni moom waxul ne du am waaye jàpp na ne mën a gula ne mbay gi na ko day jàpp leen muy Ama Baldé kenn ku mu mën a doon yéen ñëpp a ci yem ku ci jëlu rëg-rëg rek da koo ragal loolu waxi mbay géey la moo xëy tey di ko wax mu mel ni ki nag seen combat bu ñu bëre woon moom bañ ca jógee seen seen moom génn na kuur ga de maanaam cour ba daal fëgg na leen ko ba mu safa sa ndax nag jàppal ñaari mbër ya yëglikaay bi boo lañ leen dagg daal toll na ci six cent vingt mille francs suñu tey dinu ko wax leneen loo xam ne tamit yëglikaay bi ñëw na ci muy combat boo xam ne amoon na fi muy marle ak kii nga xam ne moo di booy bool marle nag ki mu jàppee ab ragal wala bàqaar moo di booy bool leneen daal moom yëfi ragal dong la def kara bi nuy bëree waaye loo ci mën a dégg daal nee na moom Marley day dugal ligue de cour fa nga xam ne mooy ca ni ca CNG ngir nag lañ ko àtte moo ko neexul waaye leneen loo xam ne tamit dañ cay delluwaat rek mooy arène nationale bi bu doon gars yi dañ ciy xel ñaar maam yëglekaay bi ne li leer ba leer day léegi nag arène ba moom convaincre na nit ñi ndax nag bés bu mag bañ ca te taxul arène ba xaaja fees moo tax nag ñu ne fi mu nekk nii li ba leer nag arène ba mujj na yey waa làmb maanaam daal combat boo tëgg fi mu nekk nii boo bëggee dégg dëgg xaj na fii nga xam ne moo di arène nationale waaye dañuy continuer dem ci lii nga xam ne nii mooy drapeau chef de l'état bi mu mel ni ki nag fi mu nekk nii day yëngu na bu baax a baax a baax a baax kaay bi ñëw nee na libiloor ak sele boo bëggee dëgg dëgg ah la ñu bëgg daal mooy jël Thiès teg ko ca kaw a kaw a kaw waaye fa nga xam ne moo di kaw la tamit caaka fay ordinateur mu mel ni ki mbir mi mbir ya fi mu nekk nii yëngu na feneen foo xam ne tamit seen am la si génne nañ ko muy waa njaareem jurbel maanaam nañ seen 66 kilos Samba Mbaalo la 66 kilos Saliou Diouf ñu gën koo xam ci mburook ndambe 86 kilos Pape Songo di ceeli ba day cent kilo ba Babacar Mbodj la ñu koy wax arobas cent vingt kilo ba Mouhamadou Bousso wala Mouhamed Bousso ñu koy wax booy fay mu mel ni ki nag Diourbel loola moom la ñu am bu ñu demee ba tey ci Leewtoo point net ñun ñu ne daal li leer ba leer day drapeau chef de l'État boobu nag ab réunion war nañ koo amal balaa ñu caa dem ci alxames ji ñu jëm li ko waral mooy xool daal technique yu bees yi ak mbirum règlement yu bees yi nga xam ne war na caa am ngir buñ ca yeggee daal lépp mën a leer ci ku mu mën a doon luñ la àtte nga daal di koy nangu waaye daal li am solo te am solo mooy àddina moom ku ci nekk boo yeboo baaxal te jéem ko sax ca ndax nag mooy li am solo ndax mu guddi wala mu naaj bés day ñëw ñu jóge fi yàlla na yéex te ñëw nañu fekk ci lu baax ndax nag Mor Fadam mii référence la yaakaar na olof na li ñëpp mu wax mooy dëgg te koo wax mbaaxam maandoom laa biiram la seereel kon dama ne ku ñu tooñati na nga jéggale ku mën a def lu baax dee ko def ndax nag loo xamul kañ la da ngay ne ca lu baax balaa muy ñëw salaamaaleykum mbokk yi suivre Leewtoo TV ñu leen nuyu bu baax di leen ziar di leen jaajëfal di ànd ak yéen ci seen euh, revue de l'arène comme ni ñu koy defee chaque jour di ci ànd ak euh, Babacar nuyu naa la. Aïssa maa ngi lay fay ah, di leen nuyu di la ziar di la ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yow di ko ñaanal bépp doomu aadama rawatina ñi nga xam ne tamit ñu ngi ñuy suivre ci Leewtoo TV ci seen revue de l'arène ak jàngat bi. Euh, Babacar tey dañuy ubbee revue bi ak jàngat bi ak li nga xam ne ni mooy tiis bi dal ci kaw làmb muy génn àddina ki nga xam ne mooy suñu papa Mor comme ni ko lamb yëpp di woowee père Mor moom la fi yàlla moom démb mu nekk nouvelle boo xam ne nag tiis na trop ci waa lamb waaye tamit ci waa géejawaay parce que ñoom it ñoom démb ñëpp démb mobilisé néew nañ fi ñëw fi ci kër ki nga xam ne ni mooy morfadam ak waa axlu làmb yëpp pour ñëw témoigner seen euh, nii tamit euh, famille bi nga xam ne moom la fi bàyyi. waaw loolu li liñ ci wax mooy inna lillahi wa inna ilayhi rajiun rek di wax suñu borom waaw parce que yàllaa ñu bind ci ni mu ko soobee wàcc ñu fii ci ni mu ko soobee ëllëg it moo ñu fiy jëlee ci ni mu ko soobee yàlla na yàlla def nag buñ fiy jógee rek ah ñu nekk ci li mu bëgg wala boog ci euh, waaw ci ay ndigalam daal parce que loolu moo am solo Mor nag comme ni ñu ko waxee ñun dañ naan xam nañ ko ci làmba yaa ngi dégg waaw mais en dehors de lamb dañ ko doon gis ni mu doon jëflante ak nit ñi muy nekk nit bi nga xam ne benn di nga gis ci moom ne nit ku sedd la loolu di nga ko gis ci moom boo ko gisee di nga gis ci moom tamit ne ku néew ay wax la yaa ngi dégg leneen li ngay seetlu ci moom tamit mooy que ni foo ko gis yaa gis kurus ci loxoom te kurus moom ci loxo duñ ca wax lu dul laa ilaha illallah astaghfirullah subhanallah ak alhamdulillah te loolu defe naa ku ko dëkkee ah pour man yaa ngi ci li li la sa borom bi sant muy nit bi nga xam ne nii démb ñu dem nañ géejawaay bi mbir mi amee am fekk fa kull ku mu mën a doon du sax waa géejawaay kese mais Sénégal lañ fa fekk parce que ñëpp nga foon ku nekk euh, wax ci moom wax yi nga xam ne la ngay wax ci moom yàlla rek tax nga di ko ak loo xam ci moom ndax defe naa adversité am digganteem ak Manga 2 ay jamono taroon na mais màng la ñu fekk ci biir kër ga mu toog ñoom Balla Gaye toog ñoom Gouye Gui ñëpp ñu ma ak ñamu àndaloon ñëpp ku ci nekk taxaw loolu nag li muy wane mooy que ni mbaax mu am solo lépp looy def rek ay sa ci àddina te du lu baax bés day ñëw nga rëccu ko yaa ngi dégg te dafa am na loo xam ne sax balaa nga fiy jóge yàlla da la koy wana ah. balaa nga fiy jóge da nga koy gis kon baax moo am solo carrière sportive rafetal na ko solo ay adversaire am yi mu doon jonganteel parce que bu ñu yeggee ba ci ne ñoom nekkuloo ndax dégg nga mbéy gi lim la wax maanaam bu même bu ngeen doon bëree sax amut yéene def lu bon maanaam moom daan la kese moo koy intéressé loolu nag defe naa xol bu laa biir moo koy man ku yéene ñëpp jàmm ñun nag yàlla daf ñu dimbali ba bu ñu man bi ma mujj wax ak moom yàggul bi ñuy waajal korité defe naa boobu diggante baa korité la ca dox matul woon sax juróomi fan fële kër guy gi lañ daje woon ñu waxtaan kera ci combat Boy Niang ak Lac de Guiers 2 mais vidéo bi mu ngi fi xëy ne leen ko tagal ñu seetaan mais boo dégloo la mu wax nga xam ne kii vraiment daal te dafa bindoo bindu boobu mel ni que dafa uf ñëpp kon li ñuy wax mooy di ko jaale ay mbokkam di ko jaale waa Sénégal di ko jaale képp ku mu mën a doon wax ne que rek comme li ñuy wax rek yàlla nañu yàlla xiir ci ñuy def lu baax te di ko jëflante moo am solo daal parce que itam lu a def ak lu waay nekk lu ne rek lu baax da ngay waaw waaw waaw seere yi dafa am solo daal dafa am solo ndax yàlla ñu bind te bi ñu bindee doyewuñu lenn lu dul ñu jaamu ko donte nag ay jaam la ñu danañu juum mais nañuy nañuy comprendre te di jéglante di jëlalante et puis waaw man daal vraiment tiis na ma trop parce que itam ni ma ko parce que dama lay fàttali loo xam ne sa man boobu xale la boobu maa ngi dëkk ba ak yaay moom mu amoon ab xarit boo xam ne ni suñu nijaay la bu ñu wax Ibrahima Ndiaye dëkk ndondol doomam sax nekkoon na suñu école Caritas bi nekk ndondol doon fa jànge yaa ngi dégg mu fa daan ñëw boobu man laa koy boobu jamono yooyu maa ngi ràpp benn suur mu ngi ñëw ba suñu côté buntu kër yor benn R21 oto bi manqué ndox mu wàcc nu ñu di ko may ndox pour mu def ko ci oto bi suñu diggante ak xam nga mu nekk koo xam ne ñun bu ñu ko daan gis foofu dañ daan neex ñu nekk ay xale yu tuuti mais vraiment daal exemple moom la ñu ñàkk royukaay lañu ñu ñàkk mais tamit lu mu mën a doon rek nañ ci jàngat ndax yàlla lu mu ñëw rek ay sa jàngat lañ ci jox maanaam leçon lañ ci war a tirer daal père ma Fadam encore dañ koy jaale axlu lamb bi yëpp parce que tey Babacar tey lañ ko war a yóbbu fële ci Touba daal di ko fay jébal boromam incha allah tey si suba gi la waroon na nekk xam na nit ñi instant bi monde lamb bi yëpp war nañ ko gunge fee nga xam ne ni mooy Touba te incha allah di ko ñaanal foofu mu jëm gënal ko fuuf fuuf fuuf fii mu jógee te am nañ si moom ñott bu rafet Babacar parce que képp ko gis lamb lamb lu mu neex neex neex père Mor Fadam tàkkusaan jotee day wàcc julli ji nga ñëwaat gis ko mu yéeg yor kurusam di wér. te bu toogee itam benn place lay toog bu jullijee ba ñëw day toog fa muy toog yor kurusam di wér doo ko gis mu jóg di dem ak ñëw fa mu toog lay toog yor kursam di werdo boo ñëwee laaj ko dina la accueillir waxtaan ak yow waxtaan wu sedd yaa ngi dégg bu pare buy wax ak mbërëm day jóg wax ak mbërëm dellu toogaat doo ko dégg mu ci côté adversité mu wax wax bu ñu koy jéppee lu moom yàlla dimbali na ko ci te waxtu woo lu mu xat-xat dina dem joxe waxtu suñu borom bi muy farata bi dellusiwaat toogaat ne ci kursam di jéggulu te defe naa yooyu mooy ñu soxla si doomu aadama daal kon yàlla na ko yàlla jéggal xaree ko aljana Tuubaa gañ ko yóbbu tamit di dëkku yërmande di dëkku yaakaar ka fa nekk itam la ba yërmandeeg yaakaar yàlla na ko yàlla def mu dajeek loolu ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw jógee foofu si Père Mbaye Gueye da euh, Père Mor dem ci ki nga xam ne mooy Père Mbaye Gueye que ginnaaw bi fi combat bi jàllee diggante Reug ak Gris 2 moom tamit génn daal di wax ci ki nga xam ne nii mooy Reug Reug parce que moom nee na gis na ci moom euh, étoffe roi des arènes gis na ci moom comportement roi des arènes ak doxalinu roi des arènes te jamono ji jàpp na mbër bu bañ jël ki nga xam ne nii mooy Reug Reug ragal moo la jàpp waa Père Mbaye Gueye koy nuyu di ko ziar di ko ñaanal yàlla tamit gudd fan ak wér gi yaram di ko ñaanal ñëpp ah. euh, loolu mu wax tamit euh, Père li mu wax rek moom dafa bokk ci ñi nga xam tamit franc parler da ko am moom dëggam da koy wax li mu xalaat comme na am na loolu nag ki ko def dañ ne ki teewe xare moo ko mën a nettali moom nekk na mbër ba bàyyi encadré ay mbër tey bu gisee benn xale mu ne kii étoffe champion la yor maanaam doxalinu roi des arènes boog li mos lay gis ci moom yaakaar naa loolu war nañ ci mën a bàyyi xel parce que kiy wax nekkul n'importe quelle personne ci li muy wax muy lamb muy Père Mbaye Gueye moo wax yaa ngi dégg rëg a moom mooy kani loolu Père Mbaye Gueye wax it yaakaar naa dindi ko dina jafe ni muy ni muy bëree ni muy fonkee entraînement ni mu fonkee lamb ak ni mu koy doxale di nga xam ne kii yoon wi mu teg wi mu jël bu ko bàyyiwul ah xaw ma luy xew ëllëg de mais xalaat naa ne mën na ëllëg mën nañ ko digg ci roi des arènes wala mu xëccoo ji ko parce que nag it dafa am loo xam ne boo ci nekkee jox ko gëdd jox ko fulla jox fayda mu jaral la yaa ngi dégg yaakaar naa war nañu mën a xaar loolu ci yow kon nag di wax ne que loolu Père Mbaye Gueye wax parce que yegg na ba ci ne sax ku ko jëlu da nga ragal muy Ama Baldé ñëpp la ci boole moom xam nga Père Mbaye Gueye waxam ne ku ko ci jëlu da nga koo ragal ah loolu tamit dina naqaree mu loo defoon 15 combats yaakaar naa su ma jumul euh, te amu ci defet actuellement égalé na record boobu waaw di yootu bu Yékini kon mu ngi ci 15 combats yoo xam ne amu ci benn défaite ñaari sans verdict la ci am ak 13 victoire loolu tamit defe naa palmarès bu raisonnable la bu neex a dégg la ci xale boo xam ne defagul dara pour man ci làmb quoi dañuy jógee foofu Babacar ba tey des ci combat bi Reug Reug ak Gris ñoom euh, comme ni ko CNG defee rek euh, chaque mardi dina leen jox li nga xam ne ni mooy euh, seen reliquat mais ci biir reliquat Babacar gis nañ ni que ñoom ñaari mbëri boo boole li leen dagg mooy sanction yi am ci làmb ji am nañu toll na ci li nga xam ne mooy 620 000 francs waaw dagg nañ leen 620 000 francs ah, loolu nag comme ni ñu koy waxee xam nga làmb moom saa yu amee CNG bi ci yenn yi boo gisee mu koy faral di muy faral di am mooy soit am lu ñu la tere nga def ko boo wàccee règle yi daal moom xamal ne moom sanction dina war sa kaw moo xam sanction financière la moo xam dañ lay convoqué waaye loo ci mën a dégg daal ay sanction du mën a ñàkk xëy na da ñàkkul dañoo def lu yoon di tere ba tax ñu sanctionné loolu toll ci 620 000 francs muy ñaari mbër yi ah des nag mbër dina bëree ba ñibbi këram te kenn du dagg 100 francs loolu lépp nag ci règle yi la bokk ak aw ci règle yi ak wàcc règle keneen koo xam ne Babacar moom combat bi jeexalagu ko muy kii di Marley ginnaaw bi ko Boy Bawol daane moom nee day def li nga xam ne mooy recours parce que de moom am na si droit comme li ñu wax rek ay règle la yuñ fi teg bu fekkee dañ la àtte ci àtte bu la neexul am nga droit dellu fa nga xam ne mooy au niveau du CNG fa nga xam ne mooy lif làmb ji nga def fa sa réclamation réclamation ba nag après boo ko defee nga déglu yaag ak sa staff na Marley loolu moo wax c'est plein droit kon nañu déglu rek ba xam fan la wànne di mujj ak ay daal mm-hmm. waaw Babacar dañuy jeexal ak beneen sanction boo xam ne gis nañ ko tamit mu dox ci diggante ma Libidor Libidor ak Sélémélé ci mois d'avril yi passé ñoo defoon li nga xam ne ni mooy combine loolu ko CNG jàppee seen doxalin mi ñu defoon ci Adrien Senghor tey mu daal di leen atte daal di leen sanctionné ñoom ñaar 450 000 xam naa tam Babacar du ñàkk leçon bu muy joxe la ci ñi nga xam ne ñoo nekk lu simple di mayante waa loolu moom dama naan du du euh, li ma leen di xamal daal mooy kan mbër yi bëri li simple pour man suñ dajeetee même bu ñu bokkee benn écrit nañu bëree bëree bu bi tax ñuy wax ne dañoo bëri lu ci waaye am jël ko parce que da ngay tey suba ñu gagné la mais nag ñëw di combine moom vraiment defe naa rafetul te itam bi ci des mooy que ni du luy neex amateur yi nga xam dañoo dagg seen billet kon loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax seen seen nag loolu mu def tamit xëy na dina tax ku ko ci dégg parce que bu bu maanaam bu maanaam dagg maanaam sanctionné leen lu toll ci 450 000 na ëllëg keneen ku ñëw bëgg ko def waaw ba pare tee seen licence keneen ku ñëw bëgg ko def moom di ko xoolaat bu baax a baax a baax kon li ñu leen di wax daal ñu ngi leen di soññu que ni loolu nañ ko moytu lit simple xam ne dañ naan Aysatu yaag Babacar la ñu tëggal combat mois de juillet dañ leen war a boole loolu su amee ma xam ne maag Aysatu bu keroogee mënuñoo bëri mënuñoo xam nga ah jëluma avance bi loolu combat nommé la mais lii benn tournoi lañ teg un million ñu ne diw ak diw yéen ñëpp ñëw ku ne bindu xam leen yéen da ngeen bindu rek sport la après compétition la compétition nag yéen ñi mën ngeen a daje après bu bu jeexee jeex na quoi mais amul lu mu war a man a yàq seen diggante ba ay sanction kii yooyu di leen ci fekk kii combine ah oui. waaw kese bu la jaralee loolu boo ñëwee fekk mu bindu nga bañ a bindu. voilà wala nga bañ a bindu wala buñ la wooyee ne la yow diw ngay bëree nga fexe nga ne disqualifié leen ma parce que mënumaa bëre ak moom wala boog boo gisee ne diw mi bindu na dem nga xool xam ne mu ngi fi nga bañ a bindu ndax ku bokkul kenn du la limbaale nag <laughs> waaw looloo gën a Babacar ñuy wax euh, ñu suivre Leewtoo TV li lañu andiloon tey ci seen euh, jàngat revue de l'arène di nuyu Mame Talla ci caméra bi di nuyu Ousmane si montage bi ak koo xam ne rek yaa ngi bëggee Leewtoo TV di safoo Leewtoo TV Babacar. waaw noonu la demee comme si mën a doon rek Aïssa di la delloo nuyoo tamit di la ñaanalal jàmm di ko ñaanal Leewtoo bi yëpp di nuyu Talla mi nekk si caméra bi Ousmane si montage yi di nuyu tamit nga xam ne mooy Dior mi ngay mi may laal temps yi maquillage ah, matu jaxum ba ak euh, Nicole ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di nuyu tamit ki nga xam ne nii moom ñoom ñooy secrétaire lañ leen di waxtanu secrétaire Thialis ya ah, muy ki nga xam ne moom mooy Fleur Thiam ak Aïda Diouf ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu di nuyu waa kër yi mais di beral tamit nuyoo tey suñu père Birahim Ndiaye parce que xam nga Aïssa dañuy daje maak moom à chaque instant bu ñu dajee muy rafetlu li ñuy def te kilifa la du mag mi nga xam ne mag mu ñuy tàmm ci moom muy waxi caaxaan la dañu daje des TV mu magnifier li ñuy def ñu dajawaat démb géej waaye même chose mu waxaat ko kon père Birahim maa ngi lay nuyu di la ziar di la ñaanal jàmm yow te di la rek encore une fois di wax ñëpp nekk ñun lu ngeen gis ne rek lu anormal xamuñu ko à 100 pour cent dafa am fuñ ci luñ ci xam ak foo xam ne suñu xam-xam kon di balu ñëpp ak di ñaanal ñëpp mais di nuyu tamit ki nga xam ne nii moom moo di commandant Fall encore ma ko fàtte di ku nuyu ba Seydou Ba tonton Ba bokk Leewtoo sax wax maa koy nuyu moom tamit parce que daf ñuy suivre tout le temps di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ballu ñëpp ak ay sa fay ñu leen jox rendez suba incha allah